<laughs> salam alaikum la famille j'espère que vous allez bien yéen ngi talakh laxe di rakam rakami di rokum rokumi wa côté yoy la dé focusons nous la famille parce que wax deug yalla nak man li ma gis daa dalum xel euh wa gaay na bay mi daa nekk ci campagne ndax man dama waru gaay parce que euh Sénégal fa ngi fi est-ce que jotul nak ah ñu tok waxtane rew mi parce que man mënuma comprendre bay Aly alliance bay Macky néna ngeen ñëw ngeen waxtaan ak moom yéen yéen candidat yi waaye Baye Sonko euh, daa mën daa lànk Baye Sonko nee na demut ndax loolu fore naa ko ci yow bay dégg naa Baye euh, euh, Guy Marius Sagna mii ni ma ko déggee muy wax nii daa mel ni Baye Sonko demul dialogue beneen bi ci topp dàmbuj tamit ni muy waxee daa mel ni Baye Sonko demul dialogue léegi gars kon daa mel ni ñun patriote fi ne nii demuñu dialogue la dese mooy focus on kon gaay yi focusons nous parce que nak bàyyi gi Mari Sagna mi ma ngay campagne xawma ma ban marché la dugg nii di dalax la laxe ma ngay rakam rakam ji lejeenti bopam ci pet ci fer play bàyyi gi Mari Sagna ngi campagne de Ousmane Sonko dialogul Ousmane Sonko dialogul liñu wax moy nañ dem élection le 25 février 2024 sénégalais yi fal basirou Diomaye fay ñu soppiwaat rew mi Macky Sall abal ay ci avancer avancer Macky Sall ñu bay soppi constitution bi kon liñu wax moy nañ dem élection bu ñu demee élection sénégalais yi fal kin bëgg a fal kon nak li moy position bi ku def ku wax leneen say waxi bop nga wax ñun leen wax moy paré nañ. <laughs> kon gaay gaay talax la talaxlaxi rakam rakami matna kon nak fim ne ne euh ñun bu ñu kenn carte ki dialogue neen def ak yoro dama ni bu ñu kenn touché ak i dialogue bàyyi sonko neena na dialogul ci wajay rek ak wa bati man ma ngay doxali campagne mom ma nga naan sonkoy bashir Bassirou Sonko <laughs> Sénégal nag ba ba Sénégal de Sénégal ba tey non réew mi fi mu toll nii non réew mi koroñoon la na neex na parce que nag Baye Aly Sène euh, li nga bëgg patriote nee na ñoo lànk ñoom jalaguñu Baye Sonko nee na ma nga cay ŋaam nee na nga bàyyi ko nee na mi ngi ci jàmm Baye Sonko nee na ma nga ca ŋàpp ca kaso ba nee na moom garaawul amul problème nee na jalagul jalagaanul nee na Baye Diomaye Faye daa war a jël réew mi la le 25 février. incha allahu rabbi kon ñun boo bëggee dégg dëgg man damaa yaakaaroon ne dialogue bi ñu ngi ciy kii waaye ndekete gars yi dialoguñ comme dialoguñ nag euh, Baye Ali xew yi lu ko xew Baye Ali xew yi di ko xew de barke ya Baye Ali bul yàq xew yi nag xoola xoola li ma sañse di xaar xew Baye Ali le 25 février ngir yàlla tin ñu ci rek wuy ma tin ñu ci parce que nag dialogue nga doon woote te gars yi neen dialoguñ man lii ma dégg focus nu gars yi lii gën foc fonctionne euh, te ngeen dem jëli seen carte électeur yi ndax le 25 février élection day am ci wa jairan ak wa baati man bàyyi encore une fois yëf doo ko randal mu aali doo ko randal yëf doo ko randal le 25 février talaxlaxe rakkam rakkami wuyaay mise en jour réew mi voilà côté yooyu la parce que nag euh, tey ci suba publier naa vidéo ni réew mi dañ ko war a mise à jour ma gis waaju dégg te am talent ci commentaire yi nee na ma xëri mise jour réew mi euh, mittiwul dañuy dem télécharger Ousmane Sonko daal ne cas bay Bassirou Diomaye fay installé ko pale a ah, loolu xalaat la xam nga loolu lépp xalaat la kon réew mi euh, il est temps maanaam violence yeeg talax-lax jeeg rakkam-rakkam ji barke yow ma loo jël basar gënalul kenn te leer na ma ni gënalul leen waaye nag parce que nak ñun wax deug yalla réew mi dañ ko bëgg def affaire de buuru gede nak <laughs> papa yaay dooma xaj bi ci kër gi affaire de buuru gede <laughs> du jall affaire de buuru gede yoy da ngeen dem ba gede mu ngeen mu <laughs> ngeen demee ba gede xëy na bu ngeen ko imposer wa gede wa gede nan ko nak wa affaire de buuru gede mom bo bëggé dégg dégg no da duxul palé anu kon ka da no wara talaxlaxi rakkam rakam rakami nani fonde pale ndem mën naa ne kon bàyyi aali seen wax deug yalla ñoo eh, la fal n'est-ce pas fal waaye ñun dañoo bëgg élection le 25 février lii lu ci nit man en tout cas képp kuy ndaanaan ci réew mi ak ponkal national ak international nee nañ d'accord ñu ci Baye Ali Sène li mu def nii ñu Baye Sène euh, ñi dëggu sax te nekkoon APR dañoo bàyyi ndax jëf ji mu def kon nag Baye Ali Sène kon yaa nekkul ci dëgg parce que nag wax dëgg yàlla dëgg du rombi nopp yow yaa nekkul ci dëgg kon nak organiser ay élection ci wajaa iran nga jël ndara ci wa man baye jomay fay dem pale ndem man naa ne wax deug yalla parce que nak ñun nak focusons nous aller recherchons notre carte d'identité nationale le 25 février dañuy talax laxi rakam rakami nani fondé fonde pale dal la gëm man ndax deug yalla dialogue bu woté nga ko waye gaay neen demuñu à propos de yi demuñu nag ah wax dëgg yàlla di ko wéetoo de sax dialogue nga moom boo ma nee wut siège yu yem baax na de wutal siège yu yem xam naa ne gars yi demuñu dialogue ba demuñu de man mii naroon na maa ñëw waaye foom mi naa sax waaye aar waaye aar yu baaxul de foofu baaxul de Macky Sall Macky Sall demal rek wuy ma demal rek parce que nag wax dëgg yàlla yoonu jàmm soriwul aussi yoonu jàmm soriwul 12 ans de pouvoir boo doyal de juróom benn weer yi ci bëgg a yokk de gars yi ko lëfa hmm? hmm? ngi fi dëgg yàlla Sénégal lëfa ngi fi que réew daal bàyyi bàyyi Aliou nee élection amul ñee ngi campagne waaw lii ku koy àtte nag waaw waa nation waa Nations Unies laa doon woo waaye ñoom boo bëggee dégg-dégg ay ko seen bëtt leen ñoo waa CEDEAO yem di seen bopp rek hmm? yóbbu na fa defe président bi nee na kaay leen ñu waxtaan opposant yi neen ñoom waxtaan ni ah yàlla na ma fekk Mali man ah man dama ne yàlla na ma fekk Mali laa wax yàlla na ma non liy xëy neexul de yàlla na ma fekk Bamako yàlla na ma fekk Mali talax laxi rakkam rakkam dem dallu ji Mali ndànk parce que liy xëy neexul le chef de l' état nee leen ñu waxtaan opposant yi ni ko ñun waxtaanuñu te bu ñu woowati ñi nag bëgguñ jàmm. bu yóbbu ba bu yóbbu élection de bu yóbbu organiser élection ndax man lii di xeeñ lii di xeeñ neexul de lii di xeeñ neexul lii neexul lii di xeeñ ay Afghanistan laa ko daan gis ay Israël <laughs> lii di xeeñ ay Afghanistan laa ko daan gis ak ay Israël <laughs> ak Palestine waaw na ma fekk sori walaay yal na jàmm yàgg ci réew mi yal na jàmm def ci réew mi waaye yàlla bu waaw ay jóg ci réew mi waaw situation réew mi nag wax dëgg yàlla mi ngi bëgg a tëri di de wax dëgg yàlla kaay leen ñu waxtaan ñee ni ko ñun waxtaan hmm? ah? nañu ndax li ngay woote waxtaan daa bari ak Afghanistan wala paasu Mali sax laay wax Afghanistan wut paasu Mali ko xam ñaata na ma ko na ma ko defal ci commentaire parce que nag wax dëgg yàlla àdduna wóor te yàlla nit il est temps d'aller au Mali ji dem defi cherche la cherchation au Mali wax parce que li li xeeñ nii ay dalfour la ko dar gi ay dalfour ay dalfour la li xeeñ nii ay yal na yàlla musal jow ay li xeeñ nii chef de l'etat ni nak kaay leen ñu waxtaan opposition ni ko waxtaanuñu ndax li ngay woote waxtaan daa bari mosoo woote waxtaan leen sotti <laughs> ah,